Assalamu asalaamaaleykum man la Baba Marketing Pro tay damay continuer vidéo bima ma defoon moy 4 investissements yi ñu mën def au Sénégal jot nañ ay feedback yu bari parce que gars yu bari ñi ngi intéressé wu tay xam nañ né commandes yi dinañ leen ko won bientôt ci suñu chaîne YouTube wala suñu Instagram wala ci TikTok bi. dama gis tamit benn question buma ma way poser won woon ne ma bu ñu nga won ñu ay investissement yu 2 millions ma koy tontu rek. nit ki lim am loolu lay démé marché même bo yoré 1000 francs 1000 francs yi mën nek investissement ma joxe ben anecdote ci sama histoire bop parce que bi may def euh, sem 2 sama rakku yaay daf ma mayon ben ginar ginar bobu ma yoré ko ginar bi dem ba amay dom ma jël ko commencé ci def ben business parce que li nga am ngay démé marché ginar Ginar la yar ginar bi amone 10 dom biñ démé ba yi bi ko jaay GI 14000 mu def ko une fois deux fois presque ma dajalé ba am 45000 si ginar, gi si même ginar bi parce que li ginar gi produire objectif moy ma investir ak si mom té bo ma ngi def sem de bala après biñ démé bam mat 45000 après ma gis ben xar buy jaay mané sama yaay pour mu jëndal ma xar bi après sama yaay jël 45000 yoy mu jëndal mako xar bi xar bi ma téye ko di ko toppatoo Luma am rek dama koy du defaat si biir lu am dama koy defaat ci biir xar bobu biñ ko téwé ba ben instant am kenn ku doon tudd ci koñ bi. indiqué sama yaay ne ko mën la jaay xaru mbay bi mën la ko jaay à 75000 ñu jaay ko à soixante quinze mille ma jël cent quinze mille yooyu jënduma si daala jënduma si dara dama ko jël dencaat ko ma dencaat soixante quinze mille yooyu ba nawet bi ñëw ñu am mu am benn pël bu amoon benn nag bu loof bu ñu jaay nag boo gisee mi ngi nekk nag bu loof bu tuuti sama yaay jënd ma ko à soixante quinze mille bu ma demee su ma jàngee ba wàcc damay dem marché wuti fa ay xont yooyu su ma dikkee jël nag bi jox ko heure bu ñu demee ba ngoon gi ma may ko ndox sangu ko téye nag bi presque benn trois ans nag bi mag nekk benn nga nag commencé développer commencé à ay doom nag bi demoon na ba am lu mot ay bi may def sama bac entre entre CM2 ak bac benn cuuju ginar def na lu mot dix nag fekk ma am bac war dem Kaolack wara jangi parce que bëgg dem euh, université Cheikh Anta job ndax dafa meti woon de trop sax temps mi ngi nekkoon temps grève yeeg ma dem ESM bu Kaolack may def sama bachelor un bachelor deux bachelor trois sama yaay mi ma si nag yi ma amoon à Gossas sama yaay danoon rat nag yi bu ratee nag yi bu ko defee daf may dencal 1000 francs par jour chaque weer mu yónnee ma 30 000 30 000 yooyu moo ma doon permettre ma fay sama ISM première année deuxième année ba troisième année mais ak extra comme yi desoon la ma doon jox juste benn argent de poste. may wax gars yi ne bul xeeb li nga am même boo yoree 1000 francs mën nga si commencer un projet même boo yoree 2000 mën nga si commencer un projet pour terminer dama leen di woon 5 projets yi nga xam mën nga ko commencer au Sénégal avec 5 millions Bon, woon leen première qui projet bi mooy. mooy transport bagage oto yi mën na jël ba 2 tonnes bagage bo bëgg mën ko ci def di ko transporter té ñi bëgg liggéey buñ ko amé xamna di lañ am ñukay soxla à chaque instant di leen wo deuxième projet bi moy auto bo xamné ne da nga ciy def jën ci mal bi pour transporter jën dëkk ak dëkk. comme Sénégal dañuy lekk jën chaque jour je sais que oto bii mën nekk projet pertinent té li nga siy dépensé du mot 5 millions buñu dikké ci troisième projet bi mo nekk oto frigo gars yi dañuy soxla frigo pour ñuy jëlee jën di ko yëbb euh, comme dëkk ak dëkk dañ koy soxla def si frigo pour mun ko déplacer. trois quatrième kii projet bi mooy oto bagage pour chantier ñi nga xam ne dañuy am chantier bëgg di jël ay bagage comme ciment fer ak yooyu oto bii mën na nekk oto bu baax ndax lu mu deedee mën nga si def deux tonnes fer wala deux tonnes ciment wala deux tonnes bagage ak yooyu pour nous terminer mooy nasel yi ndax na kii nasel yi mos ko dugal deux fois au Sénégal je sais que la demande est très forte oto yi ñooy sama best auto pour su ma demoon bay investir au Sénégal ndax xam naa ne la demande est très forte te pour nga jëlaat xaalis bi nga si c'est très facile. ok gars wa wasalaam maa ngi leen di ñaan ngeen partager vidéo yi tamit ku am une idée nañu ko jox si commentaire yi Sénégal li ko mën développer Moi, ma am une connaissance ma partage ko ak keneen yow nga am une connaissance nga partage ko ak mais bu fekkee dama yore 1000 francs nga ñaan 1000 francs ma jox 1000 francs j'aurai plus de 1000 francs mais bu fekkee dama am une idée pertinente ma partage ko vous, vous aurez une idée pertinente et j'aurai une idée pertinente c'est ce tax suñu développement gën a y'a jëf